y no caí solo kon ni ma wax sànq rek euh, ñu jëm ñu jëm ci nag ci évétement boo xamante ne bu doy waar événement boo xamante ni dañ ne ay crème làmb da cee bokk wala ay mbër yoo xamante ni tey dañoo bokk ci làmb am coowu làmb am foo xamante ni am na fu làmb nekkoon ñu dugg fa bala ñoo ñëw nag ci grand combat bi dañuy ñëw Albourakh Events ñu gis ni ñoom dañoo demoon ñëwaat duñ na demoon sax dañoo defoon benn stand by ñëwaat ñu gis nag ba ñëwaatee ba tey macha allah. changement bu bari dafa am euh, nan nga gisee loolu structure bi. waaw Albourakh Events mi ngi bàyyi ko ci Aziz production Aziz production nekk structure boo xamante ne dafa am lu mu liggéeyee làmb liggéey na combat yu mag ci làmb ba leen indi na ci làmb Aziz production moo tëgg drapeau HBK Mbaye daf tëgg ko ay édition yu bari Albourakh bàyyi di rakam Aziz dem ba mu yàgg sëriñam trondoom tere ko làmb da ko bàyyi di tëgg làmb xëy na am ndigalu bàyyi tëgg moo tax mu bàyyi bàyyi mu ñëw mu tëgg bàyyi ñëw ci période boo xamante dañ ko ci soxla pourtant alburax yàgg na parce que bo euh, la dëggeer de booy ñaa alburax ko tëggoon mooy combat bu mag bi njëkk am arène nationale alburax moo ko tëggoon pourtant du woon Aziz alburax la woon alburax events moo tëggoon combat boobu mu nekk loo xamante ne nii lu am solo la seen ñëw ci làmb day yokku làmb seen ñëw ci làmb dafay jaay làmb parce que ku leen xam xam leen ci événementiel ku leen xam xam leen ci ci ci combat wàccaayu combat yu am solo ba tax na bu ñu ñëwee di ci def loolu aussi di ci liggéey lu am solo parce que ñi ngi gis ni nga xamante ne ni noonu la seen combat yi mel combat yi ñëw na mais teewul dañoo indaale seen site internet am seen façon boo xam moom la ñuy liggéey ngir mën a jaay seeni combat gis nga mbëri yi ñu tëgg ñoom mbër yu mag yi dañuy ànd ak ñoom fu ne di tourner ñoom yu rafet yuy jaay làmb loolu nag mooy àdduna loolu mooy liggéey bi liggéey bi dafa war a ànd ak innovation liggéey bi dafa war a ànd ak qualité liggéey bi dafa war a ànd ak loo création loo xamante ne ni dafay tax làmb mën a yokk bul liggéey rek pour yow sa bopp Modou Mbaye day liggéey pour fayeku Modou Mbaye day liggéey pour boppam mais day liggéey lu yokk làmb alburax noonu la taxawee aussi ñu gis leen bi ñu ñëwee aussi ci côté làmb nit yi nekk ci làmb ñu bari ñu ci mën a côtoyé côtoyé nañ leen xëcc leen ci seen wet ngir mën a ñoom it yokk seen seen liggéey man gis nga dama fay nekk danga may gis des fois ci site internet bi ma am yenn affaire yu ma fay jàllale c'est parce que dañuy jàppalante bu weesoo liggéeyu làmb bi dañu am ay lien yu jege yu ñu boole muy Baye muy Aziz ñuy samay jarbaatu papa fonk sam papa nag lool bëgg ko jàppale ko teg ko place du ñu def lu ñu wowul sam papa moo tax ñoom ci lu ñu nekk man dama ciy nekk ba jeex ñu nekk ay nit yu baax yàlla yàlla sàmm leen te fi ñu bëgg a yóbbu làmb yàlla yàlla defal leen ko. Ah. am na solo mais ci journée la 30 boobu Modou dafa am combat yoo xamante ni euh, combat premier combat deuxième combat yooyu yëpp mën nañu wax ni grand combat la euh, dañuy ñëw ci combat yi nga xamante ne moo nekk ci biir combat yi Papa Boy Djiné Tapha Gueye 2 combat boobu waroon na. comme dafa waa waroon na. combat bu doy waar la sax nag dafa Gueye 2 Papa Boy Djiné Papa Boy Djiné mën na jaare ci combat bi tàq ba faw waaw sport la làmb la xam nga am na ay défaite am na ay défaite mais mooy mais ñi ko daan ñëpp Tapha Gueye numéro 2 kenn mënu ko ci ñi daan Papa Boy Djiné ñi ci mën Tapha Gueye 2 bariwuñu maanaam ci bëre ci qualité ci technique léegi nag Tapha Boy Djiné tey bu daanoon Tapha Gueye numéro 2 effacé na lépp lu nekkoon ci ginnaawam lu lu nekkoon ay défaite comprendre nga Tapha Gueye numéro 2 bu daanee Papa Boy Djiné du ko yokk lu bari ci làmb moom dafa am position bu mu taxawee ci làmb fi mu toll ci may chance ay raqam ak bëre yenn combat yi nga xamante ne dañ koy bëgg combat amateur moom foofu la toll Tapha Gueye numéro 2 du ko teree nag moo am ci xaalis du ko teree moo am ci jàppale mais combat boo xamante ne ni daal pour man Papa Boy Djiné moo ci war a def lépp moo war a xeex moo war a bëre moo war a daan mën a moom am évolution ci fi mu jëm que xale la il est jeune il a de l'avenir devant lui Tapha Gueye numéro 2 n'a plus ci làmb il a il est trois fois champion d'Afrique ndaanaan làmb ji ñëpp nangul ko ni dafa mën a bëre man am na booy mbër yu bari suñ ma woowee ne moom moo Tapha Gueye numéro 2 lañ may wax dama naan leen bu leen ko jël de moo leen man waaw moo leen man la loolu la demee moo tax combat boo xam ne daal combat bi daal Tapha Gueye numéro 2 mën na ci dellu nekk ci place bi mu nekk ba tey mais Papa Boy Djiné mën na ci jaaree tàq ba foofu waaw moom yeneen combat yoo xamante ni donte combat yi ci nekk dafa bari euh, ndax présenté woon nga leen liñ ci war a waxee jeex na dafa xanaa day dañuy kiiwaat rek mbokki internautes leen tuuti mais dafa am yeneen combat yoo xamante ni ku ci ni combat Liss ak Zos ñu gis boobu dafa nekk combat boo xamante ni dafa am benn combat bu nekk ci kanamam mais Liss Ndiago ak Zos bari na coow combat boobu ci côté Liss Ndiago jóge ci Pokola ñëw jël Zos ñu gis ni ñeme bi mu ñeme Zos. félicité Liss bu baax a baax félicité Liss parce que <laughs> Liss dafa daanu ci moroomam dem jël magam te pourtant normalement bu ñu xooloon calcul yi Pokola Liss ko woon njëkk a bëre te Liss waroon Pokola buy bëre ci allure ci nu classe bi Liss di bëreel la waroon bëre normalement Pokola waroon jël Zoss comprendre nga mais Liss est très bien entouré staff bu baax la am encadrement macha allah xaw ma leen. mais damay xool rek ni muy communiquer des fois ni muy préparer woo ni muy defee ma xam ne Liss mi macha allah il est très bien entouré muy combat bu am solo ci moom moom it bu daanee Zos lu lu li moog Pokola passé na te bu daanee Zos est que du sax xaw a jiitu Poko lamb la parce que ki daan la ñuy xaar ki bërewul waxuñu ci moom mais kii bëree di daan. kiy bëre di daan quoi mais muy bëre nag ak koo xamante ni nag ku doy waar te damaa gis ki muy bëreel mu mel ne ko xaw a soppeeku mu mel ne ku xaw bëgg mu mel ne ku bëgg combat bi waaw mu changé ñu gis Zos muy entraîné entraînement yo mu daa mu daa def ñu gis Zos booy yi wër ko booy yi dar ko ñu gis Zos mu bëgg combat bi même ba ci communication buy wax nga gis ni kii bëgg na combat bi Zos nag muy mbër moo xamante ne nii bu ñuy wax ci technique ci moom la fekk baax c'est un fin technicien sa façon de lutter ni muy taxawee ci géew ku munul bëree doo taxawee noonu déedéet ku munul bëree du sànnit ka tànkam nii dén benn ku munul bëree doo def loolu mu mën a bëree loolu daan fi ay technicien booy ñaa ku ko daan technicien nga daan guy gi daan Issa Pouye daan Tidiane Faye il a battu que des techniciens Tidiane Faye c'est la professeur de Lamsar mu nekk ndaanaan doon koo xam da nga koy jox cër pour daan ko waaye da koy jox cër waaye pour nga jeexal sa combat moom da ñëw imposer ko li ne ci yow bañ a xeex ak moom xeex bu bon ndax Zoss xeex xeex naa ku dul liis te ragalul waaw te liis mën na def benn erreur ci xeexam dootu ko dolli Zoss daan ko ci jël bu rëy moo tax combat la boo xamante ni nii liis concentration moo ko ci war une fois dans dans dans l'enceinte su duggee ci biir géew bi na concentré wu na jox cër adversaire am mais bu arbitre sifflé na ko agressé parce que Zoss du mbër mu ñuy bàyyi muy xalaat Zoss bis boo ko bàyyee mu xalaat mu nax la du mbër mu ñuy bàyyi muy xalaat ndaanaan la mais Zoss moom tamit xale bi muy bëreel am na ay atu am na lu mu bër am na lu mu mën Liss Ndiago bërekat la boo xoolee façon bi Liss Ndiago di bëree xoolal Liss Ndiago day bëree ci benn combat boo xam day am lu mu six ba sept clé ci benn action wala ci ñetti kele mu boole ko ci benn action def ko bu la defee lii nga bañ mu def la lii def la lee waaw ah, léegi nag combat boo xam ñoom ñaan ñëpp ku ci nekk am nga noo war a waajalee ku ci am nga noo war a ñëwee. mais nga xamante ni moom mooy Liss mais dañoo gis ne dafa am dafa mel ni Liss ak Ada Fass ñooy bëri yow tournure boobu nan nga. waaw laa ma mel noonu. Balla Gaye ak Modou Lo meloon na noonu ci combat Balla Gaye ak Eumeu Sène Modou ak bala Diouf. ñu doon def signature bi fii Bese Yawo Balla Gaye ak Modou Lo di xeex ba signature bi amul te ñoom ñaar bëre de day am jamono bu nekk day am ñaar ñu génn ñoo xamante ne ni seen ay supporters du ñu juboo du ñu déggoo du ñu mos loo wax ñu ne déedéet léegi nag ñaar ñooñu buñ buñ ci tollee seen même bu ñu bërewul sax bu ñu dajee signature day metti du yomb comprendre nga moo tax ko moo tax ñoom ñaar ku ci nekk rek na nga xam ne bërewuma ak sa moroom bu dee da ngaa jël sa avance su moroom bu ñu la bu dee promoteur yi comme promoteur dañuy def loolu jox la avance waa ne la yow ak diw ka ma naam Ada Fass bu dee dafa daan guy gi est-ce que dina bëre Liss Ndiago waaw léegi bu dee dafa daan guy gi est-ce dina bëre Liss Ndiago kii Liss moom bu daanee Zoss du gis ku dul aada ci kanam aada lay taxaw mais kon aada ak Liss ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk victoire moom nga bëgg ci sa combat kii da koy bëgg pour daw songi aada aada bëgg da bëre ko daan pour avancer tuuti ne ko dépasse naa du ma sa morom guy gi laa daan comprendre nga moo tax ñoom ñaar seen komba ci kanam war na mën a nekk combat buy neex mais su ma doon liis njaago man du ma jël Ada Fass léegi waaw ah, dama koy wax xalaat bu mu topp euphorie bi coow li bari na rek mais bu mu jël Ada léegi xale la liis man naa bëri lool kenn dàq koo bëri ci génération am waaye combat bu nekk ak fi mu ko war a jëlee combat bu nekk ak fi wara tool te combat bu nekk ak dayo bi nga ci war a am Liss buy bëreeg Ada Fass warul toll nii mu toll buy bëreeg Ada daa war a am doole pire dafa bëreeg Ada daa bëreeg Tapha Mbeur Tapha Mbeur daanu ci Ada Fass pour Tapha Mbeur pour Tapha Mbeur rectifié wu Liss Ndiago jël dóor ko mu daanu. mën na nekk nag cercle boo xamante ne kii daan kii kii daan kii kii daan kee mais su ma doon liis pour ma bëreeg Ada Fass non damay dem uti doole ju bari changé taxaw changé xoolal changé lu bëri ci man ndax liis Ndiago Ada Fass seen combat ku ci daan yaay yaay doon yaay doon roi au jeunesse bi yow yaay xale yi yow la ñu topp comme Modou Lo ak rek bi ñuy bëri ci allure boobu lañ toll. yaay doon la non kii sax banlieue la dëkk kii dëkk ville. mais yow yaa doon roi wu jeunesse bi xale yi seen moroom morom yooyu yëpp yow ki ci daan da ngay génn ci loo boobu comprendre nga moo tax su ma doon liis dinaa dinaa dinaa dinaa xaalis bi war na gën a mën a bari doole ji gën a bari xame bi gën a bari supporters yi gën a bari ci liis te bu boobaa la jàppale bi di gën a bari waaw. Mhm. bi euh, wax nga ko léegi Arafas guy gi jël nga leen jëlati leen mu nekk combat boo xamante ni di guy gi wax ni xaalis moo ko booleeg moom defet yi fu mu toll Ada Fass da dafa prouver beeg si ñu nangu ko macha allah mais combat boobu nan ko gisee gis nañ ni am na tension bi ci nekk. waaw du ñàkk tension ndax mbër mu mag la ak mbër mu bëgg dem mbër mu ndaw ak mbër mu nekk ci yoon bëgg a dem muy loo am solo guy gi doon naa bëri na fekk nekk ëpp expérience aada njëkk ko ci làmb jiitoon na aada ñu ne 9 ans ci làmb. kon ki la jiitoo neuf ans ci làmb nag danga koy jox cër bu la neexee signature nga wax lu la neex signature la mais bu nekkee ci géew bi dafa am noo war a bëreeg moom parce que guy gi dafa am lu mu mëne guy gi mbër la boo xamante ne booy bëreek moom bu la xasee jàpp pour nga def action du yomb ndax moom moo lay bëgg a diriger moo lay bëgg a manipuler mbër la moo xamante ne nii day bëree tànk ndax bu jàppee sa ngemb rek day daw kot te bu côté bu bu la côté day jéem a dugal li boppam ci sa biir te bu dugalee sa bopp boppam si biir bu jógee loolu bokk na ci ay forum guy gi bokku na ci ay forum mu bàyyi la yow mbër mi nga def sa ay pexe moom mu comme li mu waxal li mu wax aada keroog ne ko ma teg ma teg beeke bi ma indi beeke bi nga def say pexe bay bëgg a dee mu daan la da ngaa fàtte guy gi nees dañuy wax guy gi Ama Baldé rek guy gi nees nees def na lu ne dem ba ci dernier action am guy gi daan ko parce que noonu la mel ndaanaan la boo xamante ne nii ku mënul bëre doo mën a défendre parce que contre kele parce que kele contre kele koy dindi te contre kele boobu boo ko jàngul doo ko mun moo tax guy gi mbër la moo xam bu jar a jox cër Ada Fass da ko war a jox cër bu bari mais jox cër bi nag bu arbitre bi sifflé da nga koy dindi ju dox nànk jëm sama kaw adversaire dóor la jàpp la imposer la li nekk ci man guy gi boo benn bennalee doo ko daan donte aada nag ndaanaan la adversaire bu sérieux la ci guy gi guy gi nag mi ngi bari xale guy gi mi ngi bëri xale bu toll moom fi mu tolloon mooy maanaam mi ngi bari xale bu nit ñi bëgg ndax moom nit ñi dañ koo bëgg mi ngi bari xale bu bari supporter guy gi daa bari woon supporter mi ngi bari xale bu làmb bëgg guy gi làmb da koo bëggoon guy gi bari na fi sa dawalal boppam ñëw ceesaat bi def na fi lu ne ci làmb ndaanaan la mi ngi bëri xale bu toll fa mu tolloon xale boobu nag mën a bëre loolu am technique am technique bu bëree nga xam ni kii ndaanaankat la dëkk ci dëkku làmb te ay nitu làmb di ko dar moo am nag ay façon am xeex foorul ci moom lool aada mosuñu ko gis mu jaay mu xeex xeex bu metti mais mu war a bëre combat boo xamante ne nag pour mu am ci li mu bëgg faw mu xeex ak adversaire am xeex ak moom daw jàpp ba pare teree guy gi jàpp parce que bu guy gi jàppee aada jàpp combat bi du gaaw jeex. gaaw a guy gi bu la jàppee ba action boo def mun la baaxul te bu la ëppee doole daan la. guy gi jàppay bëreem. aada li ko arrangé mooy jàpp def action. jàpp bu def action bu wóor bu gaaw. jàpp lu gaaw bëre lu gaaw déstabiliser sa adversaire xool combat yi nga xamante ni moom la daanoo nga xool faay bi faay bi mu def parce que am na mbër lu mu ay aay am na foo xam boo ko fa yeggee daan ko nga xool parce que il faut adversaire yi tàmm wala il faut mbëri tàmm di étudier seen ay adversaire dina leen permettre nga xam ni ngay bëreek moom nga xam fi ngay tàmbalee fii ngay tàmbalee fii ngay jeexalee loolu am solo lay doon mais combat la doon boo xamante ni daal lu ma la si mën wax gaw ma ni xeex bi dina ci bari mais moo war a tijji làmb ji. xeex bi moo war a tijji làmb ji pour buntu am ñoom ñu bëri. mais ñoom ñaar seen physique gis euh, guy yi mu ne dafa doon piéger ki xam te ne moom mooy aada dem na ba naan ko liñ la wax amul ci côté blessure gis nañ aada face poids bi dafa yokk est ce que euh, poids boobu noonu mën naa bëri guy gi. il faut mu am doole de pour bëri guy gi. mais nag doole du poids doole du masse doole ci yax la te aada xale la warul mu néew doole te loolu mu toll noonu war na ko mën a indaale ci doole mais nag man je suis pas d'accord mbër war a bëre ci deux mois nga changé ci je suis pas d'accord entraînement moom entraînement moom bu dëgg rek ni taxee wax bi ci gën a naturel moo la gën gis nga nit ki am poids wàññi ko man moom ma gën a nit ki tuuti ngande nit ki am pois wàññi pois bi ba mu doon doole moo ma gënal nit ki tuuti ba mu yàgg mu volume est-ce que volume ba doole lay doon mais lu ci mun a am il faut que aada am doole pour résister guy gi il faut que aada am doole pour mën koo tegal li mu bëgg bu fekkente ne nag loolu mu indi doole la doole guy gi bu oosee dama koo ragal te keroog guy gi bi ma gis signature kanam gi daa jeex tax ki ma gisoon yaa deux semaines yaa trois semaines xaw ma yaa deux semaines bokkul ak ki ma gisaat ki ma gisaat kanam gi jeex na xaw ma nag mais daal nuru na ma ko changé ci làmb ji. communication Adama nga koy laaj kër démb guy gi ñu gis si Ada Fass ba mu defee sorti ne ko li lay daan mi ngi biir géejawaay dañoo gis guy gi dem lalu te ba mu luyee lëloo par rapport guy gi bu ñu doon gis am na différence est-ce que euh, message boobu ko Ada joxoon amul dara lu mu yokk. waaw des fois mbër dugal mbër ci combat gars yi daan nañ ko wax ci Balla Gaye gi <laughs> Balla Gaye Boy Niang biñ defee signature bi Balla Gaye xaw ma lan booy ñaa wax la ñu ne booy Niang dugal na Balla Gaye ci combat bi ah, yooyu day am des fois waaw baaxoo goog yooyu waaw waaw booy ñooy loolu day am des fois mbër dugal la des fois sa adversaire dugal la ci biir komba mais bon lu ci mën a am rek mooy champion daal mooy mbër euh, fan ma mbër doole mbër doole guy gi daan arafaas ko guy gi daan arafaas day tax mu taxaw mu nekkaat ci place bi mu nekk rek ah yokk bu daanee guy gi waaw guy gi bu daanee arafaas guy gi daan na Ama Baldé mi bëri la ci xaalis la ci am na ci xaalis fay ñu fay ko xaalis mu bëre mais bu daanee arafaas tey guy gi daan na ku raw arafaas daan ki daan arafaas Zarko moo daan arafaas guy gee daan Zarko ban waaw mais guy gi la rek. guy gi la rek moo tax combat la boo xamante ne nii su ma doon aada jox cër grand bi de. ah aada daan guy gi moom day yóbbu aada ca kaw aada bu daanee guy gi rek rek guy gi la daan dem bëreeg Bombardier mm-hmm. wala bëreeg Sa Thiès mu bëreeg guy gi. mu daan Bombardier kon rek rek daa daan guy gi bëreeg Sa Thiès ah, euh, te aada wax aada wax na ko guy gi ci signature bi ne ko ñi la daan ñëpp ñu ngi ci kaw te loolu laa bëgg daan la dem ci kaw mais <laughs> avec la manière guy gi du ko ñuy manipuler de. Hmm. bu neex combat bu neex boo xamante ne nii ku jàpp ni Ada Fass amul doole mën na nax boppam mais ku jàpp ni guy gi mënul daan Ada Fass mën ngaa nax sa bopp. parce que làmb xam nga làmb day wor làmb day mbëri dañuy wor da gis benn mbër ci un mois mu toll nii nga gisaat ko mu toll nii kooku déjà wor na ndax changé na li nekk ci moom moo lay wan ni combat yi des fois di ci sax teel a wax baaxul bàyyi ba ñëw ci semaine bi bu mu jubi nii nga mujj leen a gis xool li ñu indi di ci wax foofoo gën a wóor waaw.